monsieur le premier ministre le peuple sénégalais voudrait savoir pourquoi les forces de l'ordre maltraitent les journalistes à Limoges de Aïda de Dakar Actu et de Feuz de Bour monsieur le ministre pourquoi est-ce que. la gendarmerie et la police est souvent accompagnée de nervis et de milices. Aujourd'hui, des gens sont maltraités dans les prisons. Qu'avez-vous à répondre à cela? ki ko mujjee wax mooy observatoire national des lieux de privation de liberté lan moo tax ngeen di torturer Sénégalais yi ba pare ngeen koy camoufler camouflage yoo xam ne ñaari yoon lay jaar benn bi da ngeen di torturer gaañ leen toj seen bopp après ngay dugal leen kaso ba ñu wet soo nekk une justice comme ça kenn du di seen bopp